salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew di am mbégte à chaque fois di leen retrouver sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal di gërëm Astou Dione bu baax di ko wax ne ko na bàyyi su ma amee mu koy sàcc daal Astou arrête de voler mes invités ça se fait pas dama dama invité Karim mu teel a ñëw astu di jooy naan ma no aw ma invité sarax ma ma ne mun ngaa jël Karim en attendant les événements. On va faire les pièces de rechange. <laughs> non, c'est pas vrai. <laughs> c'est moi j'ai volé les invités de Astou. parce que sama invité bi dafa corona. mais du ma leen wax kan la damay bañ ngeen xam ne Habib la <laughs> bonjour et bienvenue à tout le monde bienvenue dans le Good Morning les vendredis nous on fait les portraits des figures extraordinaires qui vivent avec nous jusqu'à présent au Sénégal aljuma bu jot dañuy tànn kenn ci doomu Sénégal yi nga xam ne ay références lañ ci wàllu wi ñu nekkee ñu defal leen. Euh, un peu seen parcours pas tout wax ci lenn li nga xam ne dafay gën a ràññeeku gën a xàmmeeku tey nag ñu euh, war a waxtaanee kenn ci njabootu Maulana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima ñas te bokk ci juróom-ñetti ñi bàyyi yoolu yóbbu woon ker ngir ñu jànge xam-xam bi mu jàngee ba noppi nag jëriñ na ci faydatu Cheikh Ibrahim waaye jëriñ na ci réewam muy wuyoo ci turu Baba Lamine ñas tey kon moom moo nar nekk suñu portrait à la sénégalaise ñaareelu partie émission bi Euh, Zé Actor ak Mahfous dañuy wàcc ci mbedd bi def ay caméra cachée pour permettre aux téléspectateurs yi nga xam ne ils n'ont pas accès à internet ñu mën a seetaan ñoom itamit ces petites choses de la vie qui nous font rire mais qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses derrière et comme tous les vendredis le bonjour est attribué à notre historien maison c'est pas un historien de formation mais c'est un jeune qui s'active et qui va à la recherche, qui fouine, qui trie, qui cherche de bonnes choses pour partager avec les Sénégalais une partie de notre histoire que l'on ne nous apprend pas à l'école. Le mine, il s'appelle sur la toile, mais Lamine Diaye, c'est son vrai nom, Lamine ziar naa la. ba yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. ba tout se passe bien. Ouais, ça se mhm. keroog dañu doon waxtaanee Mamadou Dia. am lu ci manqué. tey dañ koy continuer. dañ koy continuer loolu moo waral ma képp Karim Xurum Xax ci bi mhm. ban ban côté. ah non garaaw télé lii du affaire yéen yéen da ngeen foog ne télé affaire diine la daal waxal ma pousse ban côté <laughs> ma siggi ah ma siggi. ngeen gën a gis sama ñaw bi quoi c'est bien. Karim Xurum Xax nag mosut a génn télé maa koy door a génn télé nii ci àddunaam <laughs> maa ngi leen di la ziar. Eh, maa ngi lay na ko waatee. <laughs> mbaa yaa ngi ci bu baax. Euh, désolé d'avoir pas écrit une lettre pour te demander de voilà. yoo xam nga. de demander de venir dans l'émission. yoo xam nga yoo xam nga parce que temps yi moom bës bi yaa maa ngi nuyu sama frère bu ma bokkal plateau bi. di ko ziar bu baax a baax. di nuyu di nuyuwaat encore. Mhm. xam xam ngeen ko moom fu lu yàgg la nag du tey quoi xam naa gars yi ñorul xam mais Pape Sidi moom du tey quoi lu yàgg la. ñu ngi lay ziar bu baax en tout cas dañu daje ci mbedd mi ma ne la euh, ci maa la fekk ci biir studio a studio léegi ñu doon seetaan télé bi war nañ ci bàyyi xel. Mhm. ne la viens parce que li ñuy wax soxnaan soxla naa ci ce point de vue en tant que jeune activiste. Mhm. Euh, quelqu'un comme Mamadou Dia qui a fait énormément de choses au Sénégal lan ngeen ci xam lan ngeen ci xalaat quest que vous avez ak liñ ñu ci waxul liñ ci nëbb ak yooyu xëy na nga mën ñu ci andil sa euh, xalaat wala sa point de vue ci. l'affaire Mamadou ja mais li ko jiitu démb ñu ngi fi doon jaale ki nga xam ne moom mooy gaynde gayndeg ndukumaan gi ki nga xam ne bon entre parenthèse tamam sama benn xarit bu nekk ci port bi dama génn mu ne ma am na benn paa boo doon tàgge de ma ne ko waaw mu ne ma kooka la ma ne ko kooku mooy Baye Ablaye Wilane mu ne mooy pourquoi nit ñi xamuñ ko ma ne ko bon bu wax nit ñi na naan ñun xamuñ ko wala ñun mais baay wilaan boo xoolee Euh, lu bokk ci njabootu Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima ñu bëri ñi am tarixa wala ñu bëri ñu am wér di jaare ko ci yoonu Maam Ibra Fall jaare nañ ci moom euh, Baye Ablaye Wilane démb lañ ko doon jébbal borom moom foofu ca Kaffrine ambiance bi euh, c'était vraiment waaw atroce il y avait beaucoup d'émotions les jeunes n'en pouvaient plus mun nañ ci bàyyi xel yër ko tuuti rek pour jox nit ñi un peu aperçu du ay pour graaw graawlu du dara mais c'est juste pour wan nit ñi ne leen c'était un homme d'une dimension exceptionnelle et ces images nous le confirment Grégoire si les images sont disponibles on peut les regarder pour permettre ñi nga xam ne nekkuñ fa woon ne démb bi ñu ko doon jébbal boromam bi ñu ko doon dugal ci kër gu mujj euh, bëri woon na émotion lool nit ñi mënuñu téye seen bopp xëlëf xëlëf ga jaxasoo nit ñi ne dee du ci dal fekk na lay am am na ba pare li fi jëlee Ibrahima mu mag ma ñas jële fi maam Abda maam Alaaji Abdallah looloo fi jëlee Euh, Baye Ablaye Wilane Grégoire si c'est bon on peut y aller